ونصح الأمة وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يصيب عنها إلا هالك مفتون وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد الصارم من تجان الشريف وجميع خلفائه ومقدمي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen balaq di dellu si ak yéen ci seen tafsiru Qur'an eh, ci site bi ñu tuddee weer wi TV leeral ci ndimbalul Seydina Omar Faye tabaarakallahu tàggkat yonent bi ñaan ak mbooleem ñi mu ko seqal ci wàllu liggéey yàlla yàlla yaatal ko yàlla yàlla barkeel ko bi jaahi mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci suuratul baqara maanaam dix-huitième aaya te mooy fukk ak juróom-ñett baad auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim aw ka sayyibin min assamaa'i fiihi zulmaatun ورعد وبرق يجعل أصابعهم في أذانهم من الصوائح حذر الموت والله محيط بالكفير ورب سبحانه وتعالى من جاي من النافقي نافقي نيوم سن مثال دال دا او نير ونكتك أو كو اسمان niir woo xam ne dafa lëndëm këruus ànd ak ay dënn ak ay melax maanaam ci seeni misaal ci jëf ñoom noonu lañuy ñuy nuru xiin wu mel noonu nga xam ne lañu cay seenu mooy taw waaye dana xiin dënn melax ci misaal ba noppi waaye ku ca yaakaar ndox doo taataan mu mel nii Eh, ci beneen misal mooy bu asaman si xiinoon bu ñuul kuk manam di dënnu boole ko di melax ñoom danañu mel ni gisuñu xiin woowu gisuñu melax yooyu dégguñu dënn yooyu ngir lan sakk guñu ñu sakk seen nopp ya ba nanguwoo ñoo dégg مملا القران يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصوائق يوم يدعون رؤوس اصابعهم في اذانهم سن باراميا بارام يا موم نيو يدق سن نوب يدس با ديغ حذر الموت خشيه الموت من تلك سوائق muddatu maanaam ñu ngay ragal euh, tiitaange dee ci melax googa ak dënn ya waaye fekk ñoom yàlla ndar kepp na leen ba mënuñu ko rëcc fen ndax wallahu muhitun bil kafirin yàlla moo peeg yéefar yi way weddi ñi ba ñoom amuñu benn bunt bu ñu mën a jaare ëllëg yàlla ci musal yakaadul barxu ne dafa mel ni rek melax ya day yaxtafu dafa këf absaarahum seen gis ya li shiddatihi wa quwatihi fi nafsihi wa dufi basairihim wa adami shabatihim lil iman bi mu këfee seen bët ya tey mënatuñoo dégg maanaam mënatuñoo gis alquran mënatuñu dégg alquran seen nopp ya sakk nañ ko waaye mënatuñoo yëg leeru alquran looloo tax mu mel ni yàlla indi istiaara ci melal mel ni dënn yooyu dafa këf seen gis ya ngir tar gu mu tar waaye mu këf nag maanaam seen dégg ya ba mel ni loola dafa riir rekk seen nopp ya mënatuñoo dégg noona la mel ñoom ba mujj rek mënatuñoo nekk ñu xam ne ñu gëm yàlla la ñuy doon kullama adaa lahumul mooy jamono boo xamee ne bii maanaam melax na ci lëndëm googu masaw fii ñu dox tuuti mel ni ñuy làmbatu wa iza azlama alayhim su lëndëmee ci ñoom xaamu ñu ne tekk taxaw kon waqafu bi hakada xaalatul munafiq melokaanu nafiq ci lii la taxaw wa iza sami'ul qur'an suñu déggee alqur'an aw amaru ñu déglu digleem ya wa nawahi ya wala ñu déglu tereem ya wa waadu waidahu ñu digleen dig ya ñoom day ñu ngay sakk seeni nopp du ñu bëgg a dégg dégg diggi alqur'an waaye du ñu bëgg mukk gis alqur'anul karim ndax loola da leen di delloo te dellu ginnaaw tuub jëm ci seen boroom loola moo leen jafe ngir lan seen xol ya nga xam ne yàlla dolli na ca feebar te mooy maradu ni faax yàlla nu caanu musal mu ne inna allaha nag yàlla nag ala kulli shay'in qadir yàlla moom attan na lu nekk waaw qudraam ak quwaam moom yàlla kenn mënu ko natt ci kàttan mu ne borom bi subhaanahu wa taala wax ne yaa ayyuha nnaas yéey yéen nit ñi rabbukum ay ubuduhu bi tawxiidi wa shukrihi wa taatihi na ngeen bennal seen borom na ngeen ko wéetal na ngeen sant seen borom ci lekk gi ngeen di lekk ay xewal seen borom ban allazi xalaxakum mom mi nga xamne mo len bind wal ladina min qablikum mo bindiit ñeneen leen fi jiitoon ay allazi awjadakum bi qudratihi min al adami wa qalaqa min qablikum min al umam yàlla mo len amal mo leen nit manam amal umma yi fi jiitu won muy xeydi fi jiitu won yàlla ngi wax ne manam ñun de arwah yep kuntum ala safa xufratin fa anqadakum allah ñu ngi nekkoon ci benn lëm boo xam ne lëm bu lëndëm la lëm bu xóot la ñu nekk fa yàlla xettalee ruux yi foofu génnee leen mooy ca alamul arwaax mu ne alastu bi rabbikum qaalu bala yàlla wàcce leen ci kaw suuf kon lankal borom bi ku ko def yaa ngi ko def fii ci kaw suuf waaye arwaax bu nanguwul woon ne yàlla mooy suma borom yàlla du du ca def jëmm muy wàcc ci kaw suuf yàlla ne nag eh, na ngeen wattan ko seen borom boobu wéetal ko topp ko ngeen sant ko ci wërsëgam moo leen sàkk te moo sàkk ñu neen fi jiitu woon ne laallakum tattaquun ay annakum ida abadtum allaha su ngeen jaamoo yàlla sirtum min al muttaqin al mawsuufina bi taqwa di ngeen doon ñoo xamee ne ñi way ragal lañ ñu melaleen leen ci kuréel googu nga xamee ni gi ñooy almuttaqin yal na ci yàlla boole allazi jaala lakum al arda firasa wa samaa binaa wa anzala min alsamaai maan fa axraja bihi min alsamarati risqan lakum yàlla di jàngal doomu aadama fi mu fu mu jaar ak moom ndax yii kenn ku nekk ci ñun yëg nga ne maanaam tële nga ko waaw allazi jaala lakum al amul kenn ci ñun ko bari pexe bari man-man ba mën a amal suufu si yàlla si lu toll noonu déedéet jaala lakumul arda yàlla def suuf si nag mu nekk firaasan mooy ñu ngi ci teg suñuy bâtiment mu nekk dégg te suuf dégg yàlla nga ko teg ci kaw ndox te boo jeexalee suuf ndox ngay daj mu nekk loo xam ne saakita la dana tekk dan ñu dëkke ko jengul xottikuwul ñu dëkk ci di tëdd ci kawam di nelaw di ci yeewoo kon yàlla nee na maa leen ko defal mu nekk lal wa samaa asamaan si mu def ko mu nekk seen téeg binaa an mu nekk téeg boo xam ne nekkul téeg protégé leen rekk maanaam ci fi leen seytaane di jaare jëbe kaw waaye yàlla nee na dama def sax biddéew yi tabaarakallaahu rafetale ko ay biddéew ak jant ak weer loole yépp nag ma aare ko doomu aadama ndax shayatinul jinni ñu ngi koy jéem a jaare ci kaw waaye ma def biddéew yi mu nekk loo xam ne waaw euh, seytaane yi biddéew yi da leen di lakk te mooy yi te kaw bëgg yàqal doomu aadama wa jaalnaaha rujuman li shayatin mu nekk di leen ràññu ba duñu mën a am accès ci protection bi yàlla aar doomu aadama waaw loolu yàlla nu ko defal mooy binaan wa anzala min as-samaa'i maa'an mu wàcc sa ndox nag fa axraja bihi min as-samaraat ndox moomu yàlla wàcc ko mu gén bàyyi ko ci kaw asamaan maanaam wàcc ci suuf ñu denc ci gàncax gàncax googa wëlbata ku nekk wërsëg yi nga xam ne moom la ñu dund ci kaw suuf yàlla mom fa allah fofu mu jaar ak doomu adam amul kenn ku am kattanu jaar fofu ak doomu adam yàlla dong dong mom rek moo man lu ni mel waaw rizqan lakum ay ja'al lakum al arda mihadan waaw musabbatan bil jibaali yàlla saxal ci ay montagne ak lépp ñu ci jëriñu mbollem anwaa zara mboolem xeetu mbay yépp yàlla dajale ko ci biir di ko naan ndale benn ndox rek tabaarakallaahu te maanaam bii day weex bii lewet domm bii saf suukar tabaarakallaahu noonu la ko yàlla di organiser benn bu ci nekk na maanaam am ferñeent yu mu gàddu ñeel doomu aadama ngir dundam waaw te yàlla nga koy nàndale ci benn ndox loolu borom bi subhanahu wa dong moom la ak manam yëggu foofu waaye amul benn doomu aadama boo xam ne manam yëgg na foofu kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jël yàlla wutal ko ndend ci leneen fa fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamun gis nga doomu aadama maanaam li rabbihi lakanuud ingratitude maanaam moom la feese waaye xam na ne boroomam am na waaye xam na ne it yàlla mooy boroomam waaw bañ gi mu koy bañ maanaam rëy rek la ci moom ak ñàkk a matal wóllëre ndax yàlla wax ne inna al insana li rabbihi lakanuud wa innahu ala zalika la shahid aha kay seede na ne maanaam yàlla mu ngi fi ndax lii muy gis te mu wóor ko ne loxo jotu ca te loolaa ngay dox mu di ca gis ay nataij loola xamal na ko ne yàlla mu ngi fi waaye amul kenn koo xamee ne kii mën na lu ni mel loola moom seede na ko li fi dox kay mooy bakkanama ko gaar li xubbil xayri la shadid maanaam bëgg lool ay richesse ak ay bien loola dox digganteem ak mu bañ a jox boromam xàqam ba toll ci jël bakkanam def ko yàlla ba tax muy jaamu leneen ngir rek poñaxitu àdduna kon fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamun bu leen bokkaale ak yàlla ak dara xam ngeen ni la ngeen di bokkaaleeg seen borom andi ko bu dee maanaam ay xërëm yoo taaj la war nga xam ne tey ji su lor doon ñëw xërëm yooyu mënu ko dàqal war ngaa xam ne itam maanaam mun la bijjil benn njëriñ ibnu mas'ud dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu ñu la doon laaj aju zanbin azamu inda allahi ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi mu ne xaal an tajalu lillahi niddan mooy nga wutal yàlla ndend wa huwa xalaqaka yàlla moo la bind kon loolu day wane ne nit moom maanaam bàkkaar bu ne mënees na ko sax rek waaye nag des nag mu jël leneen teg ko ci kanamam loolu la mu def ko palaasu yàlla waaw yàlla ne in kuntum fii raybin bu ngeen nekkee ci werante ci sikki sàkka mimma nazzalna ala abdina ci lii nga xam ne moom lañu ñu wàcce ci sayyiduna muhammad te loola di alquranul karim yàlla ne bu fekkente ne da ngeen di werante naan waxu jinne laak nangam laak shaair laak lu ne ngeen dugg ci mun a daal faatu bi suuratin min misli indi maanaam lu mel ni alquran bu ngeen ko indee nag wax fexe leen ba wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin ngeen woo ñeneen ñoo xam ne bokk ñi ci daayiratul iman ñu dox seen digg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba moom yonent bi bu indee alquran ngeen andi lu ni mel ngeen andi juge boo xamee ne bii dafay indépendant bokkul ci biir kuréel bokkul ca bëri kuréel pour ngeen xam ne maanaam alquran mënu leen a fexe mukk ba andi lu ni mel kon wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum saadiqin bu dee dëggu ngeen ko ñoom na nga yëg ne eh, humul kazibuun ñoom ñooy kàccikat yi ndax loola duñu ko def borom bi subhaanahu wa taala wax ne fa in lam tafalu gis nga lam nafyu la waaye mën na nekk nafyu fadratin mooy benn diggante rek ba yàgg mu saxal waaye yàlla jëfandikoo ñaari araf muy lam ak lan lan nak boko déggé moy du am mukk ila yawmi din lam harf jazmin la lam ta fa in lam taf'alu waaw taf'alu manam bok ci af'alul xams nga xamné mu ngi jazame sabatu nun te moy notal rotal nun gi nekkon fofu ndax tafaaluuna la waron doon walan taf'alu lan di harf nasbin mom gis nga taf'alu tamit nekkat ci lu mu daaru bo xamee ne mu ngi nasabe rotal nuun gi ndax tafaluuna la waroon a doon waaye mu ne tafalu fële lam yafaluun la waroon doon mu rotal nuun ga loolu lay jazame loolu lay xafade bu ko defee tabaarakallaahu loolu day wane ne loolu manaiya qataiya la mooy tere boo xam ne tere bu ñu dogu la kon nag wat xattaqu naara lati na ngeen ragal sawara allati waquduha annaasu wal hijaara sawara wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikk na ci hadis di leen wéral ne maanaam yàllaa ngi daal safara ngir képp koo xamee ne kii da ngaa weddi alquran ngir képp koo xam ne danga ngaa wutal yàlla ndeen mooy allati waquduha nnaas wal hijaara nga xam ne maanaam taal nañ ko ba mu yànj ngir rek nit ñi ak doj yee jaam al wuqud fa huwa yulqi fi li idramiha neena na danañu sànni doj ca sawara sababu sanni ba du pour ñom ñu yek metti ndax ñoom amuñu wax ko xam ne sawara ba sawara boy lol aw ñeel nak doomu adama ci dugg yalla ñu ci yalla musal kon fa tabarakallahu a nga xamne sawara woowu yàlla ko dencel nit ak doj ya ñu doon jaamu yalla ñu ci yalla musal sallallahu alaihi wasallam دفا وحني أتدرون ما هذا نخمجين التي وقودها الناس والحجارة تموي ثورة ووي الذي ملل قالوا نكو والله ورسوله عالم يلا أجن أنت مغام قال مهنا هذا هجر رمي به في النار منذ سبعين غريقا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى عرقها نعم sawara woowu de sawara la woo xamee ne wii borom bi daf koo sànni ca safara munzu sabaina xariqan maanaam lu tolloog juróom-ñaar fukki siècle fa huwa yahwi fi naar fekk moom tàng na xeetu tàngoor woo xam ne ba tey jii bu ñu ko tegee ci lu mu war a lakk daal dafa mel ni rek daf koy seeyal yàlla nee na nag uiddat lil kafirin waajal nañ ko waajal nañ ko ñeel ñi nga xamee ni ñi ñoo wedd seen borom ay huyyi at tilka naaru wa arsadat lil kafirin yal nañ ci yàlla musal kon dige boobu yal na yàlla mooyul nu ko ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayiratul iman nga defee tabaarakallaahu wa basiri yàlla nee na dina nu bégal nag allazina amanu gaa ñi nga xam ne gëm nañ bi xulubihim mooy ay dinañ leen defal albasharatu bi qulubihim te mooy wax leen li yàlla dencal ñi nga xam ne ñoo bokk ci dairatul iman bu ko defee tabarakallahu yan ci yàlla boole e, bi jaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam xam naa dañuy yem ci aaya boobu rek insha allahu e, ñaan yàlla yàlla e, defaat ñu amaat jataay ñu mottali insha allahu ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp yalla nuko yàlla deglo top lolu ko yàlla defal nu leeru alquran ak barke bi bi jahi mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wafaqana allahu ala taatihi birida wassalaamu alaykum wa rahmatullah